El Hadj Meng nag ki ma bëgg a gërëm bëgg Sénégal gépp ñaanalal ma ko yàlla mooy Ablaye Ndiaye Ngalgu yàllaa ngi dogal ci mbaaxam ma war a inaugurer sama daara le 13 août waaye Ablaye Ndiaye Ngalgu mooy nit ki yëkkati teraangaam dugal ko ci man nag ni ma yàlla bindee ku ma defal teraanga ma wax ko ku ma defalul tous ma maandu ci yow El maa ngi ñaanal ab Ablaye Ndiaye Ngalgu waxuma la nekk mairie Tivaouane waaye yàlla na ko yàlla dimbali ba ñu nomee ko ministre ci réew mi ndax Ablaye bu nu ko nomee ministre nommé ko ku baax nommé ko ku yaru nommé ko itam koo xam ne mbaaxam ci ay mbokkam la ko njëkkee kon yàlla na ko yàlla sagal yàlla yokk ko sutura ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ablaye daal amuñu fayam na ko réew mi ñëpp ñaanal guddal fan wéral yàlla suturaal la ci daraje yonent bi alayhi salaatu wa salaam affaire bi kañ la le 13 août incha allah le 13 août fan. Kébémer Kébémer la. bi le 13 août la waaye lay Ndiaye bi mu ko yëgee xam ne bisu alquran la moo ma woo ma ñëw mu ak àddina ak li ci biiram jox ko. yeneen te yonent bi nee na nag man laa yaskuri naasa laa yaskuri laa koo gis du sant nit du sant yàlla parce que yàlla bu lay jox teraanga da koy jaarale ci nit yàlla yàlla yoorul loxoom di jox nit mais amee hmm. lim la war a jox nit la koy jox nit jox kon ku la defal teraanga sant ko. Ablaye ñu ngi koy ñaanal bu baax. yéen a bokk si xaaj Malick ñun daal ñu ngi ci moom. moom Ablaye Ndiaye Ablaye.